kuy jooy mënta nax kuy jooy mm-hmm. euh, te dañ jàpp ne xëy na ci contexte bi ñuy dund jamono ji xëy na leneen lañu tal mm-hmm. lu dul di wuy ji ay invitation ci ay fête mais foofu dama jàpp ni euh, et d'ailleurs à à raison ci ñi nga xamante ne jot naa ci échange ñoom te bokk ci yeew yi mm-hmm. dama na wax ne est-ce que nekk leen di jaawale les pinceaux parce que le temps de la république quand jàpp ma ni su fekkee ni inscrit euh, maanaam invitation yi Euh, ci temps de la république lañ ko inscrire. gisuma benn yoon benn vingt vingt quatre heures matu ko sax parce que tey soo xoolee défilé bi wala boog cérémonial bi mu ngi tàmbalee neuf heures du matin. avant quatorze heures jeex na ci diggante boobu gëmuma ni maanaam muy teewaayu Ousmane Sonko Khalifa Sall Malick Gakou. Mhm. Euh, ñoom Déthié et tout Yewwi Askan bi. ci diir bu gàtt boobu rek. war na leen mën a jaxasee jaxaseeg réew mi ba ñu jàpp ni xëy na. dinañ dinañ gis ni dañu dañu varié wala dañu war a wuyu ji président Macky Sall wala yu mel noonu en tout cas yi nga xamante ne xëy na. ñoom waxuñu ko parce que ñoom raison yi ñu évoqué mooy ni ñu ci bëri ci suñu ñooñ. dañu leen a jàpp te jàpp yooyu booy xool di ko topp loxo président Macky Sall ngeen di fekk ginnaaw kooko nag mënu wëlbatiku di ñu invité ñu koy wuy ji. parce que ba tey moom la ak ñoñam. parce que jàpp ñii. ka woote république wala institution la respecté. Mhm. mais man jàpp naa ne quoi qu'il en soit ak ñun fulla ak fayda ñu jox bés bi ak li muy symboliser ci ñun. Mhm. ne serait-ce que pour répondre à la république. Mhm. waaw pour répondre à la république parce que jàpp naa ne invitation boobu noonu c'est une invitation de la république. war nañ mun a ne serait que benn moment ñu def focus ci bis boobu ci temps bi ma la wax nii lu gàtt. dem fa comme ni ko Barthélémy Dias defee parce que euh, euh, gis naa ko mu ñëw teew peut-être on va me dire que c'est le de la ville mm-hmm. que li ma jàpp mooy nii raté nañ occasion boo xamante ne war nañ mën a participer à manière ci fête bi nga xamante ne fête national la mm-hmm. encore que fête bi dafa jëm ci gën a kañ delloo njukkal ñi nga xam mooy suñu force de défense et de sécurité mm-hmm. nga xamante ne bis boobu rek la ñu am daanaka ci at mi ci lu toll noonu nga xam te ne bu ñuy wax ci suñu souveraineté bu ñuy wax ci suñu indépendance. Mm-hmm. ñoom ñooy image bu koy refléter. ne serait-ce que ñooñu jàppoon naa ni waroon nañu am une délégation de Yewwi je ne dis pas que ne ay Ousmane Sonko au moins. Mm-hmm. de Yewwi ñoo teew fa. pour wane que ni kat ñoom. a ah, Bara Gaye Yewwi la bokk. voilà ah, oui oui sauf que dernièrement on a vu que ni un Barthélémy quand même yu ci bëri ci waa Yewwi. voilà tegu fa tànkam suñu wax tey Yewwi moom bokkul ci leader yi. Mhm. il ne pas membre de la conférence des leaders. Mhm. conférence des leaders xam nañ ni ay xalifa Sall ñoo fa nekk ay ñoom. Habib Sy Khalifa léegi jox na ko Habib si waaw Habib Sy moo ko jiite léegi je veux dire ba tey. Mm-hmm. Khalifa même fekkee jiiteetul. conférence de leaders mais ci la bokk ay ñoom Malick gàkku mm-hmm. j'aurais compris que ni un Malick Gakou ñëw wala keneen sax moom mën a xam mais ñoom avant sax yooyu di am dañoo décliné dañoo wax ni carrément demuñu. donc <laughs> ah, ah, Mimi aussi euh, <laughs> moom peut-être mën nañ comprendre que ni moom bi mu fa jógee yàggut. Mm-hmm. xam nga Mimi bi mu jógee ci ñële yàggut. daanaka ay weer rek la. donc moom xëy na. mën nañu ci benn moindre mesure comprendre xëy na ni mu décliné. mais mhm. jàpp naa ne tey suñu wax opposition ci réew mi. en tout cas bu ñu opposition radicale ñu ciy tudd ñooñu. jàpp naa ni war nañ mën au moins benn siège. ñu dem xam nga teewal fa euh, coalition bi wane ni kat c' le temps de la république. Mhm. et ça n' a rien à voir avec le temps de la politique. boo xam ne dañ kañ cee jox mooy le président Macky Sall. Mhm. ci ligne bi allo salaamaaleykum. Ah, waaw kooku moom daw na dinañ ñëwaat xam naa dañu dañ ah yaa leen ko jagleel nag seen bés la <laughs> donc ngoone ci li nga xam ne nii si la Pa Ousmane nekkoon mhm. euh, ñàkk teewaay bu opposition naka nga koy jàngatee. d'accord xam nga 4 euh, euh, avril dafa nekk fête nationale mhm. pour ñu ñëpp la. man yaakaar naa ne politique war fa mun nekk. li doon rafet. mooy tey ñu gis opposition gis pouvoir eh, ci benn laps de temps bi ñëpp toog. Mm-hmm. mais ñoom it nag la nga xam ne moom la ñu yëg. Mm-hmm. ba décliner invitation bi. peut-être ñoom ñoo ko xam. Eh, ni ko ni mu ko waxee tooguñu ci ay waxtu. Mm-hmm. ñu def seen communiqué eh, ne président invite nañu ci li nga xam mooy fête calafel mais duñu dem. par exemple pour ñeneen ñi tey ñu ku ci mel ni Bara Gaye yeewi la bokk gis nañu ko. mu ñëw toog représenté. peut que même bu fekkee ñëwul Yewwi ñëw na en tant que euh, euh, leneen li mooy présence su Barthélémy Diaz. Mm-hmm. ñu bari dañu ne lan moo tax mu dem fa ñenn yi mu ne dafa war a dem. Mm-hmm. mais il faut ñu xam leen Passemane. Euh, mooy ji nga ville de Dakar nekkul invité fête indépendance. moom ci mairie bi. Mm-hmm. Mm. parce que mooy li dafa nekk co-organisatrice ci li nga xam ne moom mooy fête bi chaque fête. boo xam ne fin ne la day jël ay ressources mooy xaalisam ak lépp. pour def ko ci li nga xam ne moom mooy fête bi. boo gisee foofu euh, tey jii ñi dëkk euh, côté centenaire ak yooyu ñu ngi mel nag mu nekk fu raf dañ ko defar ba mu rafet. c' pas le président de la république mais c' est la ville de Dakar. donc munoo def lu mel noonu andi say agent doo ñëw toog ci fa nga xam ne moo moo fa la mbir yi amee. donc présidence il n' pour lu tax. ah mais dafa am lu koy forcer pour mu toog non mais mais mais ak tout dispositif bu mu jël yëpp. Euh, ak ak moyen ak moyen yu mu ca def. ça ne na aligné sa xalaat la. mais beneen mbir dama la bëgg wax ne amul mooy seule ville boo xam si nañ ko ci wàllum constitution sénégalaise. ci par par exemple ci bi nga xam ne euh, foofu la nekk. capitalu Sénégal capitalu Dakar yow nga nekk lu lu maire de la ville. man yaakaar naa ne tey fu ñu woowee défilé muy fête nationale kenn waru la fa jiitu. ci sama xalaat noonu laa ko gisee donc ñu naan Barthélemy waru waru fa dem wala keneen waxu fa dem man damay wax ne fi mu dem place sam la te wax na fa dem hmm. ci ci lu man loolu laa xalaat peut-être que ni nga xalaatee ne keneen ak keneen waru fa woon dem peut-être nag un peu d'accord c'est pour pour dëggal li ma doon sànq. Mhm. yeewi am nañ seen siège te waroon nañ fa mën a teew. d'accord loolu foofu laa mën wax ci Barthélémy Dias beneen bi muy ñiy wax ne Ousmane Sonko ñëwul mhm. déjà man Ousmane Sonko bu doon dem Ziguinchor lay dem. Ah. parce que gis nañu Ziguinchor daaw ba ñuy def prise d'armes ma nga fa woon. ren nee na wérgu yaramam. moo ko permettrewul pour mu mu dem foofu peut-être que loolu mun mën nañ ko ko nangul mais c'est une fête nationale def nañ ko ci jàmm dañuy ñaan yàlla euh, gën ko di ko fekkee tey laat suñu force de défense et de sécurité yi. Mm. di leen souhaiter rek une bonne fête. une bonne fête. waaw mu ngi noonu donc euh, Pa Ousmane. waaw euh, mais itam bu ñu analyser un peu li nga xam ne nii moom la ñi nga xam ne nii wala dafa am. ku nekk dafa mel ni am na ko dugg de. allo salaamaaleykum. kenn ñu ngi xaw a mhm. ku dugg rek bàyyi xel ci ci biir actualité mais itam. Hmm. Euh, sànq si sa biir wax dama see dégg euh, nga ne euh, ñoom dañu wax ne tey jii mënuñu bokk ñoo xamante ne ni ñoom ak bokk ak ay nit combat. Mhm. ñu nekk ci ci ci ci ay xat-xat maanaam nekk ci prison bi te ñoom a chaque fois ñuy taxaw di wax ni kat ñii ñoom jàpp nañ ne ay prisonniers politiques mhm. que aussi logique man ma jàpp ne Pape Ousmane bi ma àndal mi ngi ca kaso ba te diw moo ko fa tëj. Mhm. ma dem toog ak euh, Pape Ousmane boobu noonu est-ce que loolu tam. moom laa lay wax nii xam nga xam nga man. waaw ils sont ci choix bi ñu def daan tous les cas jeex na jeex na. mooy ni choix bi lañ opté woon ne teewuñu ñoom noonu lañ ko déggee. man li ma dégg mooy ni tooguñu ak Macky Sall république moo woote ce n'est pas Macky Sall politique bi ñu jàpp ni moo jàpp ñoo ñu tëj leen mhm. c'est-à-dire man dama bëgg ñu comprendre man fi may waxee ñoom dañoo jàpp ni waaw la part des choses moo tax ma ne la bu ñu jaawale on parle du fête nationale on parle de indépendance suñu indépendance ñuy fête mhm. te bu ñu ko waxee ña ca ña ca ña ca yey mooy suñu force de défense et de sécurité mhm. ndax tey bu ñu demee ba moom sunu bopp ba suñu réew ñu ah koy doxalee comme ni ñu ko bëggee dafa am ñu xeex bañ fa yegg si mhm. xeex boobu nag moo rogalaat ba tey ñu koy mandargale suñu force de défense et de sécurité nga xam ne ñoo koy mandargal ba mun ñoo may jàmm ji ñuy waxee téye suñu frontière suñu jaww ji ba ci suñu ndox li tey niñ ko wanee ci défilé bi mhm. ñooñu laa ne su dee ñoo koy mandargal ba ñu woote ci parce que république la mhm. nekkul Macky Sall adversaire ñu nga xamante ne dañoo jàpp ni tey moom moo leen tëj moo tëj ay ñoñom ba ñu jàpp ne xëy na bu ñu toogee moom la ñu toogal parce que tey Macky Sall benn mayon la ci ci république donte nag moom mooy le chef suprême des armées kooku uute nag chef de parti wala chef d'une coalition moo tax ma ne la le temps de la république la ce n'est pas le temps de leneen le temps de la république dañ ci war a fekk les forces vives de la république te ñoom en tant que opposition dañoo bokk ci les forces vives de cette république bi nga xamante ne jàpp naa ni waroon nañ au moins benn siège toog fa. d'accord mais pour représenter maintenant xam nga yàqu dara ils sont libres. di comme ni ñu ko defee. mais jàpp naa ni ñun man analyse laa def man dama jàpp ni en dehors de li ñu joxe comme motif. Mm. pour man motif boobu noonu j'aurais compris bu fekkoon Macky dafa toog ni woote naa dialogue national wala dialogue politique wala lu mënti doon ñu ne dialogue politique duñ ca dem lu mooy ni condition bi mooy nañu bàyyi suñu gars yi ñu jàpp na bàyyi lii na bàyyi lii nangam mais ça c'est le temps de la république mm-hmm. temps de la république nag dafa bokkut ak ay temps politique ay manœuvre ak yu mel noonu ak yii mm-hmm. loolu laa jàpp ni ñoom ñàkk ñu ko bañ a xama ah. damaa jàpp ne xëy na yegg nañu benn extrémité ak pouvoir en place foofu laa doon ñëw pour wax ak ah, xam nga tey c'est les politiques ah, ah, pas ñàkk ñoo xam loolu li fi jot a am li fi jot am ñëpp gis nañu ko même bu fekkee ne yeew yi dafa nekk kuréel goo xam dafa ëmb ñu bari ñu jël ko dellu si waat salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay ziar ñu bu baax naka tey mbaa yaa ngi si jàmm. waaw ñu ngi sant bu baax a baax a baax Mohamed Touré Medina Gueule Tapée. tur bi. Touré Medina Gueule Tapée mbaa ndogu nga rek. waaw Mohamed yi de. Ah, ah. waaw ñu ngi leen delloo jaar ñu ngi nuyu nekk ci bi noonu. Uh-huh. di sargal ñëpp comme suñu feet bi rek tey moom Sénégal moo xew la. d'accord. Euh, man li ma daan wax rek xam nga mooy comme diggante pouvoir bi ak opposition. Uh-huh. man daal sama gis-gis mooy wax dëgg yàlla man tey ci man ñoom moom damay dal seen kaw quoi. ñan si. Euh, opposition uh-huh. parce que man li ma gis mooy doonte président de la république invité wu leen ñoom mënoon ñu ñëw waxuma la nag ñoom ñu jot lettre invitation. Uh-huh. waroon nañu mën a ñëw quoi loolu moo gën a rafet parce que c'est pas Macky Sall mooy féete indép mooy féete anniversaire am wala doomu Macky Sall mooy féete anniversaire wala jabaru Macky Sall c'est le uh-huh. Sénégal su fekk. waaw comme ñoom bu ñu waxee ne ñoom d'ici moyen de un an ñoom ñoo war a jiite Sénégal ci ñoom li ñu wax. oui yaakaar naa ne bu Sénégal xewlee ñoom war nañu mën a ñëw teew ko mm-hmm. waaw monsieur maire nag euh, Ousmane Sonko. Mm-hmm. xëy na moom amaana moom mënul woon ñëw. wala ak tamit comme ni ñu waxee jamono bi jamono bi fan yi passé yëpp ñu wax ne euh, wérul dafa am problème bu santé. Mm-hmm. kooku mën nañ ko comprendre. waaw mais daal comme ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñu wax ne daal ay patriote leen di gis à chaque fois nekk ci wetu Ousmane Sonko ku demee ni sunu ak ñeneen ak ñeneen wax dëgg yàlla waroon a ñëw teew daal man daal noonu laa ko gisee quoi. man nag wax dëgg yàlla parti pouvoir man Macky laa faral mais nag parfois moom. ma mhm. kaw a mere Macky Sall ànd ak gaay waaw mais tey moom wax dëgg yàlla dama mere gaay quoi parce que mënoon na gën a rafet daal sama gis-gis. <laughs> waaw d'accord. jaajëf jërëjëf ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. d'accord merci Euh, mi ngi noonu mën ngeen def comme moom woote itam joxe seen avis par rapport ak li nga xam ne nii moom la waxtaane dafa mel xam nga euh, kii génn léegi mm-hmm. wax na li nga xam ne moom mooy xalaatam ci mbir mi mm-hmm. euh, dafa am loo xam ne tam il faut ñu waxtaane ko mm-hmm. fête nationale la mm. bien que ñoom demul dara yàqu ci dara def nañ ko nuñ ko waxoon defee amul benn loo xam ne gis nañu ne bu ñu woon dina ko changer wala bu ñu ñëwoon tam dina ko présence la mais tey ku ci mel ni amuñu obligation dem parce que yéen am na ñeneen ñoo xam ne jot nañu invitation te demuñu. mais par exemple pour le cas de Yewwi Askan Wi dafa nekk kuréel goo xam ne ak lu ñu ti wax euh, dañoo jiital. Ousmane Sonko ci seen ay conférence de presse ak yooyu. Mm-hmm. ce qui s'est passé derrière ma ñëpp gis nañ ko. Mm-hmm. Euh, ci yi nga xam ne Ousmane Sonko euh, dal na ko ñenn ñi ànd ak moom jàpp na injustice la. Mm-hmm. par exemple ba muy wujji Mame Mbaye Niang bëkki dem boo Ndiaye la ñu ko condamné ñenn ñu àndoon ak moom ñu ci bari ñu jàpp leen tëj. Euh, tey booy dem fenn tamit ak même bu dee wàllum politique booy dem dangay dem ak xol bu yaatu dem dem boo xam tam dem bu la neex la mais dem boo xam ne da da ngay demantu wala juste bëgg nga def benn acte de xam nga loolu tamit rafetul peut wala li nga xam ne ay ñooñam subir nañ ko muy alentouram nañu ko jàppal bu yàgg ba jeex nga ñi ñu wootee force spéciale ci moom lañ ko boole ñi ñuy woowee ay commando ci moom lañ ko boole ak Falidou Keita mi nga xam ne moom moo noon coordonné nemmeeku tuur bi na ko jàpp bu yàgg léegi yow ki la jàppal lépp mhm. yow Pa Ousmane tey bu ma ñëwoon euh, jàpp sa doom dóor sa doom xeex ak yow après ma ne la kaay ma invité añ boo ñëwee même boo añ añ bi neex parce que man du ma mais man <laughs> wax jooju dama koy nga pour pour pour lan jàpp moom ma dóor moom nanga nu mu koy relativiser. parce que xamul tax man dama ne chaque fois. Mm. je veux être naïf. ba keroog may gis saa yu ma waxee dara lu ko prouver. Mm-hmm. du tee nag nangu naa ku ne gis-gisam ak anam bi ngay analyser yëpp et tout. Mm-hmm. mais man samay gis-gis ak samay samay analyse du wéeru ci ay gis-gisu nit wala ay jàpp-jàpp nit. Mm-hmm. day wéeru saa ne concrètement. comme yow am day wéeru saa ne ci sama vécu ak la ma xam.